salaamaaleykum salaamaaleykum chers amis internautes yi salaamaaleykum chers abonnés wu Safo Elvision Média comme ni ñu leen ko Elvision Média dans une autre dimension boo leen gisee fii ma taxaw ñu ngi Night Club fekk si fi ndaanaan koo xamante ni doomu géejawaay la kenn dootu ko présenté muy Khadim Temps borom baye yaay baye baye ñu wax mu ne accu nee ne Khadim n'a dafa wax lu am importance nee lu mu génn ñu ni ko fu foqalee dañuy àndak ak waa Elvision Média teewe si tey spécial soirée sénégalaise bi muy def ñu xam Khadim Temps lan la génne ñu ko fu foqale ak Khadim Temps lan lay bëggalee tey fan sami fii ci Ravin ak Elvision Média aw ale moo ko fi teewal léegi léegi lay doon. ay ca Saliou comme ni ma la ko waxee léegi rek doomu géejawaay bu wootee ñëpp a koy wuy si ndax macha allah Khadim Temps dafa xewee nu ne ci àddina ay mbokku artiste am boo gisee porte bi macha allah mu ngi ala daw mais ma taxaw fekk koo xamante ne day naataangoom mu nekk ci bi comme moom xarit nuy naa la. waaw maa fay bu baax. noo tudd. man Mansour laa tudd. yaa ngi ci aar bi. waaw maa ngi si aar bi waaw. mais xaadim taa daa nekk suñu mag. Mm-hmm. nekk ku baax barke Sëriñ ma borom bàyyi yaay. Mm-hmm. nekk na ku baax yemale xale yeeg mag ñëpp. waaw xaadim taa dafa nekk ku baax nekk sama càmmiñ nekk ku baax. Mm-hmm. ñu bokk ma moom ci benn téléfilm bu ñu naan euh, vérité cachée. xam nga ma la wax. di fa répété di def suñuy tournage te mosuma changé mosul mel ci man leen lu ñaaw. su gisee xale yi day mel ne ay morom. xaadim taa lii lii mu am nii. barki maam si Rafal jomb ko. ndax daa nekk Baye Fall da kaa yee lool de. kon bisam bi jomb ko bak Seydina Mouhamed lu baax rek lay am ci kaw ci kanam ci lu baax billaahi wa bu gëmee boppam rek noo day dem ndax ñi ko teewal fii rek ëpp na ëpp na. Mhm. nga. waaw artiste laa waaw. looy def da ngay tëgg da ngay taasu da ngay. man damay tëgg lépp laay def damay fecc damay tëgg. waaw yow tamit kon yaa ngi waajal doomu fan nga. man doomu géejawaay laa doomu baay laay. Mm-hmm. waaw doomu baay laay laa di ànd ak Baye Modou Mbaye sama nijaay. Baye Modou Mende. waaw Baye waaw mu nekk sama nijaay jàngal ma aar. Mm-hmm. yow tamit nga nekk sama jigéen nekk u baax. man a yow ñu xamante teew ku ne xam ne yoroo ba kanu kaani xeeñ wala kan mu dama daabu. baa yëg nga ni da ngaa sañse maa ngi sañse def ba mu baax. Saliou jëlal ma sañse xale bi maa ngi nii def ba mu baax. yaa ngi waaj kon daal dugg si biir defante xaarim taanu baax. maa la wax lii. taxawal nag moom tamit ndeysaan xam na waa El Vision Médias ndax El Vision Médias la bokk ñu tuddee jëkkëram mu teew ci ci soirée bi maman nuy naa la. yaa fekk la tey soirée bi nga def ba mu baax. waa gis nga de. Ah. def ba mu baax nii. waaw ah. xayma daa ma tuddee sama jëkkër Maxime Dóoru. waaw moom mënul ñëw ma teewal ko fi. nga teewal fi Maxime borom Géejawaay Dóoru. waaw nii daal waxo fi teewal def sa sëba bu baax. waaw gis nga rek. di sëla sëla sëla sëla. noonu la xaarim temps tey. ah seene koo jaay sama bopp rek nag. jaay sa bopp mel na. billaay waaw déggal loolu. sama jëkkër a ko jaar. déggal loolu. <laughs> ñu ngi lay jaajëfal nee na day jaay tey ngi nii jëlal. ni ma la ko waxee woon gannaaw ba ma defee sama entrée fee ca porte ba allah mu ala daw me maa ngi nag dugg ci biir ñëw fii ci VIP bi fekk fi xale yoo xam ne macha allah dañoo pare nu ne ci àddina soxna si nuy naa la. fay naa la. jigéenu xaarim temps la. waa fii noo tudd. Sagar Ngom. Sagar Ngom nga ñëw tey teewel xaarim temps. waaw fii ci soirée xarim daal sama góor la sama xarit mënoon na maa gis rek ne rakam laa xem ma tuddee wu ma bisam mais dama kaa tuddee piir. ah si marraine yi nga bokk. waaw si marraine yi laa bokk. kon yow tey fii dafa war a wàcc de nga defante xarim temps yu baax. waaw dafa leer. waaw li nga sañse gis nga ko. dama kaa xeeb. kon xeeb nga ko nii. Saliou nee na moom li mu sañse da koo xeeb kon kii bu ko xeebul woon nit ñi fan lañ jëm macha allah. merci beaucoup. Ah, merci ba ci kanam kon. waaw incha allah waa Aïcha El mu ngi fi caméra baa ci kanam ñu xool lu muy defante xaarim temps loo nekk. maa ngi ci jàmm bu wér. ma la fekkee ci soirée xaarim temps du ma ni guleet. waaw dëgg ndax sama jëkkër ju jar a déplacé moo tax ma déplacé muy Modou Gueye ménager xaarim temps mënul tëgg dara te ñëwoon te xaarim temps itam dafa bokk ci ñun def na nag comme bopp moo tax lu mu tëgg rek faaw ñu ñëw. nii mhm. de nga def sañse def la classe kon tey fii dina wàcc de noonu la defante xaarim temps. waaw nar a wàcc ba zéro ba suba mhm. dara du yomb. woli da ngaa yàgg dëgër fit ba bàyyi woo doom ca kër ga ñëw ci soirée bi. ah kañ ma ngay nelaw moom papa. <laughs> Sali waxoon naa la ko avec Khadim Temps tout est possible di nga gis sax kay ku tay la lalam tay ndax ravin wàcc ba muy zéro maa la wax lii. ana jaago yi